ñun ci sensibilisation bi la ñuy dox kon yaakaar naa ni comprendre ngeen mbokki Sénégal mbokki àddina mbokki Bantamba ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen bégee di am mbégte ak kontante mbokk yi di ànd ak yéen ci émission bu mag bi nga xamante ne moom mooy Bantamba qui parle de l' actualité du pays qui parle de de la lutte mais aussi de l' actualité culturelle loolu di loo xamante ne nii daanaka moom moo ëmb réew mi mbokk yi loolu la Bantamba di jël di leen ko jox mardi bu jot. ci la 2STV ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu képp koo xamante ne ni waxtu wi yaa ngi jàkkaarloo ak sa télévision toog di seetaan Bantamba mbokk yi jamono bi ñu toll doona toll ci jamono boo xamante ne nii sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam dara tëw ko mi nga xamante moo mën lu nekk mooy def lu nekk te moo sañ a def lu ne dafa am benn doomu jàngoro boo xamante daf koo jël sànni ko ci àdduna mu wër àdduna te doomu jàngoro bi mi ngi yëngal àdduna en moment waaye yàlla sunu borom mi nga xamante ne moom moo koy teg jaam mooy xool jaamam bi ko neex mu teg ko yàlla bu mu ko tegati kenn ci barki Seydina Muhammad yàlla sunu borom mi nga xamante ne nii moom mooy xool li ko neex ci àddunaam moom moo ko moom mu def ko ci ñu ngi koy ñaan ci barki Muhammadu Rasulullah mu sàmm mboolem jullit mu sàmm mboolem doomu aadama ndax moom kat moo ne lépp lu mu bind doomu aadama moo ko ci gënal kon bu ñu ko tegee rek dafa fekk ne antan nanu ko waaye bu nu ko antanee ñi ngi koy ñaanal ñi ngi koy ñaan moom sunu borom mu teggil nu ko ndax te mu bañ a dalati kenn gis nañu ni mu def li nga xamante ne noonu la def bitim réew gis nañu ni nga xamante ne mi ngi koy tàmbalee def ci Afrique dugg na ci sunu réew waaye ñun ci sunu réew bi mu ci duggee gis nañu mbooloo gi gis nañu bennoo gi ndax ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi ndax sunu réew li nga xamante ne moom moo koy doxal mooy politique ak religion waaye gis nañu njiitu réew mi déggoo gi nga xamante ne am na ko ak waa ak waa diine ji ñu dégg sëriñ Mountakha Mbacké dégg yeneen kilifa diine yi nga xamante ne ñu ngi ci Sénégal ku ci nekk kàddu gu rafet gi nga xamante ne wax nga ko di ànd wala di coopérer kàddu yi nga xamante ne le président de la république wax na ko kon Sénégal nañu ànd ci sensibilisation bi kenn ku ci nekk bu fekkente ne sax dañoo tere joxe loxo ngir moytu feebar bi nañu ko def ndax kat dëkk bee nga xamante ne moom mooy màkkatal mu karam mooy dëkk bi nga xam fépp képp kuy jullit moom foofu nga reefe dem ñoom ñi nga xam ñooy kilifa ya jamono ji dañ koo teg loolu di wane ni mbir mi sérieux na waaye ci fi mu toll ñi ngi ñaan yàlla sunu borom mu sàmm ñu mu sàmm mbooleem jullit mu sàmm képp koo xamante ni yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah rek yàlla na la yàlla sunu borom sàmm def ci yow loo xamante ni nii tey jii dara du la dal ci barke Seydouna Muhammad ñu ngi siyaare kilifa diine yëpp di la ñaan yàlla sunu borom bàyyi lañ fi ñu yàgg fi lool ci barke Muhammadu Rasulullah ñu ngi siyaare kilifa aada yi ñu ngi siyaare képp koo xamante ne yaa ngi ci Sénégal mbir mi nag coow li bari na waaye ñun sénégalais yi nañu déglu li nga xamante ni loolu la yoon wax nañu déglu li nga xam noonu la suñu ay kilifa wax ñu doxee noonu le président de la république ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci mesures yu am solo yi nga jël sàmm xale yi ci njàng mi sàmm xale yi sàmm ñi nga xamante ni ñu ngi ci bërëbu liggéeyukaay yi waaye sàmm képp koo xamante ne nii rek yow yaa ko jiite macha allah gis nañ ci fulla gi gis nañ ci fayda gi. jamono ji daanaka frontières yi yu ci bari dañ koo tëj loolu yëpp ay mesures la yu am solo président de la république ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax da ci jaajëfal police nationale da ci jaajëfal gendarmerie parce que gis nañ liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi ko ciy def ñu ngi leen di nuyu waa Sénégal bu baax a baax a baax sa mbaam Abdoulaye Mbaye Pekh dañ woo foofu parce que dafa am lu mu wax mais père nag xam nga père ñun ay géwél lañ ñun maîtriser wuñ affaire yi ñun man tiit naa nelawuma lekkuma ndax am lu ma naqari ah da ngay waaru mbokk yi ban damaa noonu lañ leen nuyoo sama xarit bi moomoo transitaire bi Serigne Ndiora maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax mon frère di la bëggee bu baax a baax a baax a baax di kontaan ci yow mbokk yi bantambaa bi xam naa comme ni ñu ko defee woon bi passé dañ leen di bàyyi ak suñu réalisateur parce que samedi lamb jo am solo amoon na fi nga xamante ni moom mooy arène national bébé Diène moom moo ko bëri ak ki nga xamante ni moom mooy Fourrière Assane Ndiaye moom moo ko tëggoon yi ci xew bari naan ci dimanche bi siyaare ka màggal Baye Fall bëggee mbokk yi ci dimanche bi combat waroon na am dox ci diggante soq ak gàmmu gay waaye jotul am sunu caméraman doon doxantu ba dajeeg soq soq am ay kàddu yoo xamante ne yëkkati na ko ci lu jëm ñu li li li waral ñu aj combat bi di ngeen ko gis ci biir Bantamba. tey waroon nañ fi dalal Forza bu écurie Fass waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci li nga xamante ne nii noonu la nekk ak écurie Fass mais mardi bii di ñëw incha allah dinañu ànd ak moom ñu jël ko waxtaan ak moom waxtaan wu yaatu ndax Forza ndaanaan la a dafa bokk ci làmb Garga Mbossé waajalal Yékini Junior waajalal ama neex waajalal Modou Anta borom Thiès waajalal gaa ñi waajal leen ginnaaw décision yi nga xamante ne nii borom réew mi jël na ko njiitu réew mi jël na ko buñ ci génnee rek dañuy teew incha allah ñu ñëw jël si jël si waat champion yi commencé waat direct yi ci biir Bantamba ñu bàyyi leen ak suñu réalisateur mbokk yi Bantamba ak Soda Style sama bàjjen moo def nii damal ñëwaat Thank

national ba ñu ngi ci digg giw bi jàppante xaaxaam bal na ko laa ilaha illallah arsenal numéro 2 laa ilaha illallah bii jël ndeysaan déggal loolu bii bii jël non jël bi na mais arsenal mi garaaw na arsenal mii dafa indaale ay arsenalam wuyul xaaxaam laay laay la laa waay mool un waay waay mool un mool un moo ngee moo ngee mënu ñuul te ñuul jël ko jëlal mool un bëri na ñuul ndeysaan waaw waaw yëkkati nañ loxo na ko jël ba rëy na jël ba rëy na ndeysaan Siteu bu Njoon wala supporter am ñoom ñëpp toog nañ ndeysaan bébé Diène waaye Balla Mbuub xale bi Medina bi maa ngi lay nuyu. Serigne Touba maa lay fay. naka mu naas ne. Eh, tey ndaanaan ngay bëreel Fourrière nga dajal tey. waaw yàlla baax na yal na ma yàlla may ndam bu sedd guy ci barke Sëñ Fallou. tey bébé loo indi tey. waaw andi naa lépp samay mbokk su waa Medina ñëpp waajal nañ ma sama waa écurie ku di mel ni sama papa Khayra ñëpp waajal nañ ma ku si mel ni ñoom sama papa Abdou Salam ñëpp xam nga waa Medina yëpp ñoo waaj quoi. Eh, tey dafa mel ni dañ la xabtal wala bébé wala jën Kayre mi ngi gis sa ginnaaw la ak booy Kayre dañ la yokk fit wala. waaw waaw waaw boo ko tëjee di ko xontu rek bu génnee daa war a def résultat quoi waaw yàlla baax na di la bëggee bu baax na baax baax la boobu lu ngay def rafet na rang muy daaw euh, xam nga vendredi boobu passé man maa waroon tëgg financé naa sama xaalis yëpp teg ñu jekki-jekki ne ma làmb ji dootul am may leen lu tax ñu ne ma dañoo grève ma ne leen ci lan lu tax ñu grève ñu ne dañuy réclamer liñ leen di fay ay assurance ma ne leen waruñoo grève grève bi nag d'accord ma dañoo war na waxtaan ak waa CNG su CNG bañee ñu génn waxtaan ak yéen presse bi soo ko joxe ay avertissement pour def ay ay grève mais nag doo ne ci kër jékki-jékki ub bi na kenn dootul dugg làmb dafa neex làmb day noobul làmb financement ko yor xaalis soo ko ci defee ba pare mënatoo ko jël yaa ngi dégg bu waxtaanoon ak CNG ne leen lii lañ bëgg su ngeen defut lii ci lii lañ jëm CNG ay nit lañ dinañ def loolu liñ leen di fayit d'accord ma ci tuuti na lool bi ma ko déggee man dama am déception wax dégg yàlla aussi. arbitre yi dañuy liggéey collaborer ak CNG euh, collaborer ak CNG presque ñaar fukki at ak nangam kenn mësu leen dégg nit ki nag sooy liggéeyee moom ay ati at nga xëy dégg ko da nga ko war a déglu ngeen toog waxtaan. mais si les arbitres yi wax yàgg nañu bind mais saa yu ñu bindee ñu jël ñu jël kayit si tiroir yi butéel nag bu feesee tuuru xëy na dafa fees moo tax ñu doxale noonu mais ñi nga xam ne ñoom lañ ñoom lañ jox làmb ji li doon yoon mooy ñu woo leen waxtaan ak ñoom mais defuñu loolu lu dul jël leen seen responsabilité mais ay mag boo leen ne jël jël leen seen responsabilité ñoom dañuy jël seen responsabilité erreur bi gën a grave mooy li ñu def daal di leen raje loolu amul si àdduna. arbitre bi sifflé na combat bi Tapha Leer numéro 2 ak ndigal ñu ngi léewtoo ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. waaw waaw daje nañu dafa leer. dafa leer dafa leer ndigal dafa leer ndigal dafa leer ndigal leer ndeysaan ndigal ndigal añ na ko añ na ko ndigal koy añ. dafa leer numéro 2 dafa leer lu mu bëgg dafa leer fa nga kal dafa leer ndigal ndigal ndigal laa. ah doy na waar dafa mel ni ñoom ñaar dañoo ànd arbitre yi lu ñuy waxante arbitre yi li ngeen di def xool leen ko de li ngeen di déewante na ngeen ko xool de xam lu ngeen di déewante ah ah lan la loxo ba Tapha Leer daan Tapha Leer daan na ko Tapha Leer daan na Étudiant moom moo ñu kanam moom moo ngeen xonk li buy dee moom moo ñu won ginnaaw arbitre bi sifflé na combat ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ndeysaan day laay laay la laa étudiant lu muy def ni yow raak ndeysaan étudiant sa song moom baaxul de waaye Pouye 2 bañ na loolu nee na ko maa bañ loolu nangu ma loolu ndeysaan étudiant Pouye 2 étudiant rëpp nañu ñoom ñaar rëpp rëpp rëpp jógaat laay laay la laa Pouye 2 kal na ko daan na ko Pouye 2 dégg ko déggal Pouye 2 déggal Pouye 2 déggal Pouye 2 ci étudiant étudiant ci yow mi lañ amoon yaakaar de ci étudiant étudiant Amar Pène ko woyoon étudiant étudiant laa yaakaar étudiant yow tamit lii lan la arbitre bi soufflé na Dibili Dibili bu plateau ak Boka Parcelles Mbooloo jël na ko Dibili jël na Boka Boka jàpp dimbali ak Pokoa jàppante na ñoom ñaar eh jël na ko Idi Sakho Idi Sakho maa ngi lay bëgg a doomu ndey Awa na ko de daanu na kay Pokoa daan na dimbali xale parcelle baa ngi nii Pokoa na ko njaago bi dimbali daanu nga de jaaxle na xoolal dimbali Pokoa bu parcelle mbooloo daan na dimbali ah Pokoa mobilisé na de kenn du Pokoa Pokoa indi na mbooloo daan de. doomu parcelle am nañu doomu interception. moom moo am problème man ama problème sportif laa damaa xam ne lamb daanu daan la mais lamb ji lamb ji ñu daan la incha allah rabbi. da nga koy daan. yàlla mooy dogal mais dama ñaan yàlla yàlla may ma ci ndam muy même may fa xasal di daan sax yàlla ma si yàlla may ndam. da xeex ma xeex bu laajee ma bëri li ma mooy victoire parce que waa police dañoo sonn defet dafa bëri quoi ñaar defet moom dafa ëpp si police. kon defet yi jeex laa xam te ñi may ñaanal aussi maa ngi leen sant leen gërëm ñi may waajal kilifa yëpp maa ngi leen sant leen damay profité aussi di sant Thierno Seydou Nour Tall vraiment fan yëpp gis naa ni mu ngi taxaw yàlla nañu yàlla dimbal daal ba yàlla may ñu dem ci combat bi Thiatou Rebeuss Alliance Baldé ñu ngi léewtoo ndeysaan ay xale Pikine xale géwël bi dëkk Pikine noonu kooku mooy Alliance Baldé loolu lay nuyoo moo féete sunu ndeyjoor Thiatou Rebeuss sunu càmmoñ ndeysaan ñu ngi léewtoo ñu ngi lewtoo Caatu Rëbës Alliance Baldé daje nañu Caatu Rëbës Alliance Baldé Caatu Rëbës Caatu Rëbës Alliance Baldé Alliance rasuna Alliance jàpp na ci ñam li si moom Caatu Rëbës bañ na Caatu Rëbës Alliance Baldé Alliance laa ilaaha illallaah ndeysaan Caatu Rëbës daan na Alliance Baldé ndeysaan Caatu Rëbës daan na Alliance Baldé ndeysaan Caatu Rebeuss yëkkatil yëkkatil Alliance Baldé daan nga eh daan nga xale bu jëwal bi de ndeysaan Baye Bal te waruma juum barke Serigne Touba damaa juddoo Njaageen nekk doomu Rebeuss waa Guy Ndiaye waa Cekkeen waa Daaru gaa yëpp ñaanal ci combat bi kon te waruma juum moom ma sens lépp lu ma def dama koy teg ci axe daa am ñu ma war a bëreel kon moom dafa mën a jug nii rek la mënoon demee barke maam Serap Fall gars yi ñuy coow laa bëgg ñu jox ma gars yi ñuy coow. yan gars la ñuy coow. bëri na. caatu ngeel caatu caatu ngeel ak caatu rëbës lamb dàq loolu caatu ngeel caatu rëbës ñaari caat yi ñu boole leen combat sant yàlla julli ci ñaari waajur waaye kontaan trop tey parce que defe naa ne tey li ma yëg ma ak yàlla rek ñoo ko xam may sant aussi le président de la république Macky Sall sant soxnaam parce lii lépp ñoom la di sant responsable départemental yu Pikine ma ciy sant nag njëkkee sama kilifa sama xarit sama papa monsieur le maire Ablaye moom laa ubbee woon moom laay ubbeewaat honorable Awa Niang maa ngi nuyu ay den fukk yéen Mbàkke maa ngi nuyu nag mention spéciale Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse ah du ma fàtte du ma fàtte Modou Mbène Diop sama frère ñëw na accompagné tey a sant yàlla di julli ci sant son di sant Assane Ndiaye di ko gërëm di sant di ko gërëm dañ ne xew bi lu muy rëy rek nga boole ñu saa ji am nga foo teg di wax ne nag ami amaar responsable la du département de Pikine seq ñëpp jàmm. boo gisee tey ñu ko dar nga xam ne tey da koo ji nit ñi olof Ndiaye faral di wax nit bu baax ci bësam nga koy xamee. xanaa kontaan rek di sant yàlla bu baax bi ñu yàlla mayee ñu fekkee ko te tal ko kontaan naa bu baax ndax Assane Ndiaye tuddee na ko ki mu ko war a tuddee muy amee am ma di jàmbaar dëgg-dëgg ci parti bi. bi ma fi ñëwee ci ndigal monsieur le maire Isaaxa di sama kilifa di sama leader di gunge si nag Ami Amar Ami Amar ñun suñu doomu nday di suñu xarit di koo xam ne président Macky rek moo ko ñëw ñu ñëw fi tey rek ci délégation jeunesse féminine authentique ñëw gunge si ko loolu moo waral suñu teewaay mu nekk nag lamb ju am solo lamb ju mag. su xisaaba capitaine dara bu ñu yaakaar naa da xeex bu ñu jàppante ñoom ñaar combat spécial Assane Ndiaye woo na fi Idi Sakho amal jàmm ma ngay moom capitaine ña ngay door capitaine di capitaine ña ngi lay door de fàq na ko capitaine daan na suqi saaf capitaine fàq na suqi saaf daanu ko Idi Sakho doomu ndey Balla Gaye 2 capitaine daan na ko capitaine daan na suqi ndeysaan bool production lañ ci àndal ñoo ngi fii ci arène nationale combat bu mag bi diggante Bébé Diène ak Fourrière ñu ngi léewtoo mbokk yi ndeysaan combat bi waroon dox ci diggante Gambu Gueye ak Sokh fomm nañ ko amatul laay laay la ñaari xale yi dañoo ñemente dóorante nañ jàppante nañu Bébé Diène mi ngi dóor ay hypercule Bébé Diène Fourrière ñoom ñaar neexoon nañu ndeysaan neexoon nañu ci taxawaay neexoon nañ ci bind laay laay la la Fourrière Bébé Diène raag bi mi ngi metti na fu mu jàpp la wut prière mi ngi xeex ndeysaan Bébé Diène prière Bébé Diène dafa bëgg a jàpp prière bañ na nee na ko doo jàpp Bébé Diène prière ndeysaan bi laay laale baaxu góor la Bébé Diène ak prière ndeysaan ay ndaanaan lañu ñoom ñaar dañoo tolloo taxawaay tolloo doole ci sama gis-gis laay laay la la mi ngi dóor Bébé Diène Fourrière Bébé Diène tël na ko eh, eh, président bi wadd na waaw président bi wadd na waaw bu ñu yeggee ci bis bu mel nii ñu leen jaaxal arbitre bi sifflé waat na combat bi kooku mooy Pierre Fala daje nañu ñaari xale yi doon la ñamante wuy sama attention attention kaaw waaye Bébé Diène Bébé Diène Fourrière Bébé Diène jël ko Bébé Diène Fourrière laay laay la la waay xale yi waay waay Assane Ndiaye waay ndeysaan combat bay walla lii mooy ah, ay xale dañuy bëre bëre ay xale dañuy bëre dañuy ñëwante dañuy bëre dañuy xeex ndeysaan ndeysaan léegi nag coono dab na leen ku ci ëpp physique rek mën nga mën nga mën nga daan ci combat bi ndeysaan kooku mooy Père Bala Diop arbitre bi dafa bëgg a arrêter combat bi lan la. parce que fi muy dóor baaxul ci ndodd la. te dañu wax ne loos kenn waru ciy dóor. mais eh ba jéem filière filière xeex xeex xeex xeex raak raak raak raak eh dafa jéem eh dafa jéem dafa jéem dafa jéem raak attention kaw filière dafa jéem oo oh. Ardo Ardo. Père Palla combat bi mën nañu wax ne c'est le meilleur combat de l'année. Ah, ci lay bokk de. ci xeex nañu bëre nañu. waaw mën na ca la ilaha Bébé Diène Bébé Diène Frière xeex bi métti na Frière Bébé Diène Bébé Diène Frière la ilaha illallah Bébé Diène daan na ko waaye Bébé Diène ndeysaan Bébé Diène waaye jëli bi rëy na jëli bi rëy na jëli na xale baa ndeysaan jël bu la ko daan waaye bébé jël ndeysaan xoola xale yi alfa xoola xale yi ndeysaan effet baa la jël bu rëy jël na mooy li ma la doon wax. nga yëg ni combat bi avorté na préparation combat ba dara desul lu dul suba nga war a bëre ñu ne la combat bi yàqu na amatul. bi nga ko yëgee naka nga ko dundee metti na. waaw metti na mettiwul. ndax tey ñu ko tegee ci cadre taalibe rek du metti waaw ndax ñun ay taalibe sëriñ Touba lañ yu wér te ñu gëm ko nag waaw taalibe sëriñ Touba nee naa la lu ko borom bi jox da koy sante suñu borom te xam ni yàlla mooy xool li ko neex mu koy dogal ci ay jaamam comprendre nga préparer sa komba def loo yor def ko ci dugg fu nekk daj lu nekk bañ ni suba ngay bëre ay cerse moo si des ñu ne la yàq na neexul ci xol mais buñ ko delloowaatee ci cadre taalibe rek. doot bànneex lay mujj ndoon parce que xamuñu woon luy xew suba yàlla rek moo xam liy xew suba mënoon naa dem daan gàmmu gay te du ma ñibbisi si jàmm munoon naa dem gàmmu gay daan ma du ma ñibbisi si jàmm leneen ak leneen lu ne mënoon na fa xew kon yàlla mi ko dogalee nii moo xam li tax mu dogalee ko nii te bu fekkente ni tawat bi a tax combat bi avorté dañuy ñaan yàlla na ko suñu borom saafara ba ñu am dat bëre ma gàmmu gay ma daan ko ci kàttanu yàlla xool leneen combat bii képp ku xam Sokh nekk ak man dund ko ak man xam nga ni combat bu ma jaral la parce que dama nekk xale ci làmb te maa ngi ciy bëgg a yàgg te fii ma nekk du sama place combat bi dama cey jëloon ay décision ferme mais yàlla moom la neex mu jaaralee ko fii te bu soobee yàlla ak yonent bi dañ ciy nekk rek ba keroog ñuy amaat dat ñu bëre gàmmu gay daan ko dem xooli leneen loolu lañ gëm te loolu la ñuy appliqué bu soobee yàlla. ci sama bàmmeel laa toog laa la wax li ma dépensé si kombaa bi ak li ma ci daj. musoo ko dépensé ci koo def ci làmb. barki alxuraani karim. lu que xam nga lu tax fii ma nekk ci làmb du sama place te dama yàgg a ni man moment bi ma toll nii soxlaw ma xaalisu làmb soxlawu xaalisu làmb te lu ma gëm la lu ma promoteur fay samay nit. samay mbokk samay gaan dinañ ci def triple bi barki Seydina Mohamed. loolu moo mettil combat bi parce que buñ ko tegee ci cadre logique dëgg tey parcours bi ma waroon def mu ko defoon du mu bëre Gamou Gueye Gamou Gueye ba ñuy xale la ñu waroon a bëre bëre wuñu nga mais nag am fu mu jaar ma am fu ma jaar yàlla boole ñu dam ko jëloon rek pour confirmer dem sama yoon barki Serigne Saliou te boole mu ko woon ak wax ju bari non déggoo li ma la wax cour bi ay ñoom saacees yi nekk nii dama fay jaar jàll dem bëri ñi si kaw te dinaa fa dugg si kàttanu yàlla bëri woon ak gàmmu gay suba tàggoon ak moom moo ma tere woon a bëri ak ñooñ te cour boobu noonu dama fay dugg. mais cour boobu noonu ñoom saacees nekk cour bu metti la de du cour bu yomb de saacees a nga fa franc mi ngi fa boo xoolee rëg-rëg. Mhm. Ah, ak yeneen xale yoo xamante ne ay ndaanaan lañu. Mhm. comme ni mu ko yombalee noonu yombeewul noonu léegi lu ñu def ci làmb lu ma ci deful. ñi nga lim nii. kan moo ma ci gën a baax palmarès luñ def ci làmb lu ma ci deful amul du gabare buñ ma kenn du ma ci taxaw kenn nga ni kii moo ëpp doole soq amul ci génération boobu nga lim fii amul koo ciy taxaw ni kii moo ëpp doole soq amul ku ci wone ci bëree lu ma ci wonewul ci làmb amul public buy topp seen ginnaaw bu toppul sama ginnaaw comprendre nga mais yoonu làmb boo gis. bu amee gàllankoor tuuti borom bu doonee borom bopp toog jàngataat boppam war na xam li ko ko xañ mu teguwaat ci yoonam te guddi yuñ tool nii bàyyi bàlla ku ci bëreeg man boo ñibbee sa kër boo tëddee dañ lay farote xam nga din boo yeggee sa kër dinañ la foroote du waxewuma ko ci côté mystique. wax ma waxu mystique de. waaw fi du cadre ay déeg yooyu. foroote kay mooy ki ñu dóor ba maanaam xale laa buy teg sama bopp ay coono toog sama ruq jàpp sama ñàmbur di xaar ku may jëflanteel. Hmm. ku ma si jëflanteel dinaa la teg lu attanul te bu yàlla dogaloon combat bi suba àdduna ci la ñuy xam ne man fii ma nekk du sama place te dama ko bëggoon a confirmer ak silence. sans dépend xam nga tey ñun promoteur bi la ñuy déglu rek. tey bu demee noonu ci côté moom tamit doomu aadama la xam na ni mu demee ndax du duñu yëkkati xaalis bu tool noonu jox ko ko jël ko ay bologu ticket jox ko booy même bu dee day defaat leneen moom xam na li ko war warloog ñun comprendre nga mais foofu noonu duñ ci sax xuus ba ba mu sori parce que peut-être lu waroon génn. wàccee ngi jot. Hmm. waay lii lan la ay waay lii lan la waay bàkk sëñ Fall lay wax

ki nga xamante ne mooy Baboy tamit dafa dégg moo tax ñoom ñaar ñu bëri tey doon na moon seen combat gis nga naa mu siif lu yàgg ah pëcce jël ma ma nga daan na ko <laughs> pëcce daan na ki ne moom na Baboy ndeysaan jël bu rëy waxoon na ko ne woon na ko dinaa la daan maa la mën maa la ëpp doole léegi say mag laa soxla xam naa du yàgg nag dana indi der ndax der moo topp si ginnaawam jaajëf pëcce mbaay salaamaaleykum maa ngi sant yàlla jul seen naa barke Alaaji Fallu ma lambaay nga lambaay biro mi simbe saaxa yaa lambaay barke Alaaji Fallu doom yaay Modou Mbaye ma nag Bathie Mbaye barke Sëñ Fallu xam nga rek combat bu ma koy jël dama sonn lool dégg ay wax ay moo di wax yu ne dégg naa maa ngi sant bu baax ki nga xam ni mooy sama sëriñ Sëñ Fallu Mbàkke booy gunaas koy bëri maa bëri be mbooloo loo wax waaw ñëw jàpp rek daan dem ñibbi waaw ban écurie nga nekk écurie Balenciaga na waaw macha allah neex na trop. ren ñaata combat nga bëri benn. bii mooy sama troisième combat arène. Euh, di kontaan bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw tey ndar ndax ku ne xam na ne làmb gëj na fi mais ku ne xam na ne ñun événement làmb rek lañu bëgg rawatina ñun ñi nga xam tey ñoo bokk ci CRG bu ndar di gërëm bu baax suñu président Makhou Mbeng mi nga xam ñun ñëpp moo ñu jiite. lii nag boo gisee ñu def ko ci ndar pour bëgg xale yi am dara pour bëgg xale yi seen xel dellu si xam ne tey làmb kirisuñu làmb du mos a kiris xëy na yàlla dogal day yàlla dafay dogal ndox dogal am rek mais yàlla suñu borom dogal na ni làmb boo amee ndar rek ñun ñëpp dañ ci am mbégte rawatina ñun ñu bokk CRG bi. mais ren benn journée ngeen amagum. waaw Sidi Diakhaté nag moo fi mujj a tëgg làmb ren yàlla dogal na booy gendar mu ngi doog am tëgg làmb mais ñan noonu yàlla lu des tuuti rek Makhoumbé ngi ñëwaat tëggaat làmb wala beneen promoteur bu mën a ñëw ñu xajal la nga tëgg làmb ci kattunu yàlla. Cheikh kooku béjjën la béjjën a ngi noonu mu tiimale ko ñaari mbëri Boy Guet Ndar numéro 2 Aline bu Guet Ndar ñaari mbëri yaa ngi léewtoo bu Guet Ndar moo leen wan ginnaaw Boy Guet Ndar numéro moo leen wan kanam ñaari mbëri yaa ngi léewtoo Aline bu Guet moo ngemboo ngemb bi gën a weex Boy Guet Ndar numéro 2 jàpp na tànk ba nu mu koy def daan na ko ah ah ah Cheikhou Seexu mbaa xam nga ni jëli bi daa luus <laughs> Seexu Seexu làmb ji luus na de làmb ji luus na de <laughs> déet <laughs> waaw waaw waaw waaw ah na na gëm yàlla rek na gëm yàlla rek wallaay na gëm yàlla grand combat yi ma si daj dafa métti loo si daj laajal sama gars yi ñu bëre dañu duru ñëw lamba ji dan may daan wallaay laazim yéen seen écrit bi kenn dama fi nuruwul mbër kuy mbër bi. kenn yow man mbër man man yéen maa mbër. mbër pire mbër ay jour loolu jour. ban écrit la. ah sanj ba mbooloo. ah sanj ba mbooloo. sanj ba mbooloo waaw. ok sanj ba mbooloo. yéen yéen yéen écrit équipe bi ban équipe la. waaw ah, ñun ASC Peñ la nekk ASC Sànd ñu boole. ban équipe lii du équipe. ASC Bocage Nior la lii Bocage Nior la du. équipe nationale. ma wàdd dañuy ñaan sunu boroom féexal ko fa mu nekk waaye fii ginnaaw Edouard dama wax ne Ousmane Ngom fi def kenn def ko fi la jóge bëri ji drapo arène sénégalaise daan booy naar Fall ca fas ga mu dëkk fii la jóge dem arène màngo juuf waxtu wi lañ dugg ci làmb ji mu daan Robert Diouf keroog Robert daf ko yenu ba ci kaw Ousmane samp baaraamu déy bi ci jumbux bi bés ngemb gëstu mu ci kaw mu daanu jaaxaanaay kooku mooy Ousmane Ngom. Cheikhou ñu ngi taxaw ak suñu papa Maxu nga di président CRG bu Saint-Louis papa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi leen di fay di leen euh, ziare bu baax. booy gëndal dëkk ndar ni moom lu mu am ci lu baax ndar la koy indi loolu képp ku dëkk ndar war nga ci jàpp soo gisee tey parrain ni ñu ñëwee ak délégation bi ñu indi di nga xam ni. tudd na ko ay ndar waaye wuy si nañu ko euh, beneen bi aussi li ëpp solo mooy xale yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi te am licence te war bëre ñoom ñëpp dugal na leen ci dëgg la nag bëre simple bi bare na ci waaye loolu soo gisee mbay dara waralu ko lu dul aussi dañuy profité ci occasion yi képp ku am lissance bëre simple ñu dugal la ci pour su yàlla dogalee génn nga ci am compétition suñ dee dem drapeau chef de l'état man la yóbbaale loolu it ci liggéeyu CRG bi la bokk. gis nañ ni aussi tamit mi ngi am ci jàmm ak salaam euh, loolu ndar wane nañu exemple encore wane ni làmb mën na ko def sans jafe-jafe sans problème am vraiment ñi koy ñi bu baax ak tamit nit ñi ni ñu ñëwee ak vraiment anam bi ñu ñëwee tamit rafetlu nañ ko. làmb ji moom neex na xumb na. ndax Eva Tra buñ ko tuddee drapeau mu déranger déplacé ay waajuram yëpp ñëw ay rakam ay magam mu ñëw ànd ay mbokkam ay magam dañuy ñëw ndax Eva jaral nañu ko dafa fekk ne rek jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñu président de la république lu mu wax dañ ciy topp li ñu interdit ci diggante. ci ay fan yu néew ndax li am ñi sant ka yàlla e ñi ko nañu joxe drapeau bi ci jàmm ak salaam su dul loolu kon délégation bi dana fi ëpp. taxaw ak ki nga xam ne nag moo ñu fi indi nag mooy booy Guet Ndar Boy Guet ci làmb ne naa leen kenn dootu leen ko présenté mais tey yan sentiment nga am tëgg lamb ju mel nii waa Ndar wuy si la. waaw jërëjëf Modou maa lay ziar amoo amoo si biir amiin kontaan rek sant yàlla sant suma ñaari waajur di nuyu suma sëriñ sëriñ Mountakha Bassirou di nuyu Baye Karim Mbacké bu baax a baax ma ñaanal bu baax di sant suma bu baax sama yaa ñaanal na ma tey mu yàlla bu am gàcc di yàlla ñaari waajur mooy lépp maanaam may may lancé au message fort a moo li man <coughs> alxuraan moo wax ni ridallaay wa til waalidey ni sama mer mu si meru ñaari waajur addis wa til lépp man lépp sama yaay la ak sëriñ Mountakha Bassirou sëriñ Abdou Karim Mbacké maa ngi kontaan bu baax di kontaan nag ci waa Ndar affaire bi métti trop mais nii la seul le travail qui paye comme ni ko as waxee damay liggéey laa si appel mbaa doomu Ndar yëpp nag ku su mel ne monsieur le maire moom mooy moom mooy dëkk bi maa ngi koy lancé message li may def pour dëkk bi la pour jeunesse bi moom la aussi parce que xale yi mën naa ne kese yi may fii en sel wi gars yi mën baax lay fay. mais ñooy ay nit ma koy jox ma koy jox mbëri sponsor ñoo sponsor ñoo jàppale ma moo maa gën koo xam ne kenn la si papa Larou Mar ma koy gërëm bu baax lépp moom la di gërëm samay mbokk waa gerte ndar wuy seeneen ma di gërëm population sonu na quoi non Larou Mar ñëw na mi si ko stade bi may ñëw waxuma loolu na la non ñëw na si ñëw na ñëw na ah yee eh, yaa ndaa <laughs> non ñëw na ñëw na ñëw na ñëw na ñëw na ñëw na di bu baax lépp moom la mais mooy li ma wax daal mooy li ma déménagé autorité yi doomu ndar yi nekk ndar nañ ma jàppale. as Bécaye Mbaye moom du ma koy gërëm dama koy ñaanal yàlla Bécaye Mbaye suma bopp la Bécaye Mbaye bëgg na ma suturaal na ma non Bécaye ma xamul lu ma koy wax affaire bi yow la affaire Makhtar Sénégal ca kanam. ñi nekk écurie Balla Sigi ñoo ma ngoog Edouard dóor na Edouard dóor na Edouard dóor na nee na ma ne woon na ma Lamine ma ne ko waaw man ma dama koy kaawoo loolu la ma wax de nee na ma Lamine ma ne ko waaw man ma dama koy kaawoo lay lay la combat bi dana neex ñoom ñaar ñoom ñaar ba tey jeexul jeexul jeexul ma nga doon jàpp naka Joob ma ngoog Joof ba tey ba tey bàyyiwul Joof a ngi noonu waaw waaw waaw waaw na ko waay ay waay Joof daan na ko waay ay eh, waay da nga yóotu ko. da ngaa yóotu da nga yóotu ba baaxul. yóotu ba baaxul yóotu ba baaxul Matar. xeex bi moo ko gënoon arrangé. mala boo xoolee xeex bi bu continué woon mën na am dara mën na am kaaw. moo ko gënoon arrangé. ndax dafa mel ne loxo yi jot ah waaw moom teel na ko a di acca ci diggante ki xamante ne moom mooy kii Boy Sarr Boy Sarr a ngi noonu moo sol ngemb lu bële li ak ki mooy Alliance Alliance moo sol ngemb lu xonq waaw ci ñuy xeex ah Alliance xeex ba baaxul xeex ba baaxul effectivement Boy Sarr dafa mel ne moom moo gën a baax xeex ñoo ngi dóorante ñoo ngi dóorante ñoo dafa mel ne gis nga Alliance jàpp la bëggoon Alliance jàpp la bëggoon ndax jàpp ko arrangé ñoom ñaar jàppante jàppante ñoo la gis ne Boy Sarr dafa mel ne jàppul de boo xoolee a jàpp Boy Sarr est-ce que jàpp na jàpp. dafa dafa dafa dafa dafa ko kor ci kaw rek. Eh, eh, eh, ah, xam na ni mën na dóor alliance mën na daanu mën na daanu gis dafa mel ne ni bi baaxul. alliance problème xeex la waaye waaye déet déet déet waaye dafa waaw waaye daanu bi waay. ay waay arbitre bi alliance ak ki nga xamante ne moom mooy Boy Sarr loo jël amul lamb yi jël amul barke Serigne Bamba jël amul ana vidéo yi na vidéo yi génn kay xam nga ni Matar la ma la ko waxee ne woon naa la tey combat bi combat spécial la combat spécial la waaye Gunaas boo xoolee ci wàllu corpulence di nga gis ni dafa taxaw lool dëgg la bébé Modou Lo moom it taxaw na mais Gunaas moo ëpp taxawaay dëgg la ko xaw sut moo ko xaw sut ba pare boo xoolee seen physiquement mm-hmm. Gunaas boo xoolee day mel ni moo gën a taxaw. gis nga gis nga li may wax ma ngoog na ko jàpp na ko Gunaas li mooy fooram waaw waaw lii mooy fooram lii mooy fooru Gunaas da koy yëkkati waaw waaw waaw da koy waxoon naa la bi moo koy wane. waxoon naa la ko. combat bi yëpp mooy. mooy waxoon naa la yàlla waxoon naa la Matar Matar waxoon naa la ko. Matar newoon Gunaas dama ko xam. <laughs> dafa xam du mën a woo daan na ko ah. xoolee dafa am dafa am kattan macha allah. la ba pare xale la. gunaas ngi noonu. sa diggante combat ak ki nga xamante ne moom mooy Bébé Modou Lo tey nga gis ni euh, bëri bi nga xamante ne bëri ngeen fi yéen ñaar ngeen xamante lool nan nga ko bëri. bëri bi si tey ak dégloo ndax dam naa di dem gars yi ni ma sama erreur lépp man maa ngay dem. kenn du wax ñoom ñaar bëriwunu. déedéet ñun gis nga ma ngoog gis nga mooy li ma la wax gis nga boo hydrobase nga moytu kuy yi ma la rek gis nga ne woon naa la gis nga ñëw naa gis na dóor na ba tey jeexul dañu sonn waaw waaw na wàcc na wàcc ma ngoog bulu dafa am kattan waxoon naa la ko ne woon naa la ñoom ñaar ñoom ñaar waaw waaw ñoom ñaar waxoon naa la ko kii dafa dëgër kii dafa mën bëre waxoon naa la ko gis na du ko du ko def du noonu du gaaw du ko def noonu tànk ba baaxul fu mu bëgg jëlee du baax te mu rëpp te bu rëppee suuf du baax bolo bolo loolu wóorul ci yow ndax ñool la wóorul ndax ñool la wóorul ndax ñool la wóoru ndax njool la wóoru ndax njool la Boy Hydra Bass wër na ko nomba wër na ko nomba waaye wa wër na ko nomba wër na ko nomba waaye Boy Hydra Bass wër na ko nomba waaye wa Boy Hydra Bass sar na ko waaye waaye waxoon na Ndiaye Ababacar Ababacar ngay xarañ Ndiaye Ababacar Ababacar ngay xarañ waxal may Ababacar asalaamaaleykum Sénégal man la Boy Niang te nag je tenais vraiment à participer ci xeex bi ñu nekk di xeex maladie bi nga xamante ni ñu koy wax Covid 19 ñu gën koo xam ci coronavirus ñu gis mu sonal euh, dëkk yëpp di propagé wu ci dëkk yëpp ñëw fii suñu Sénégal ñu bëgg nag euh, ñëpp ñu bàyyi ci xel bu baax xam ni feebar bu existé la bu nekk la boo xam ne mi ngi sonal réew yi di rey ay doomu aadama yu bari. li ñu njëkk a def nag mooy dañuy rafetlu décision yi nga xamante ni le chef de jël na ko pour dëkkam di wax ñëpp ñu ko ci yoon ñu bàyyi xel bu baax mesure préventive yi ñu joxe ñu bàyyi ci xel bu baax mooy le fait que ñuy laxas suñuy loxo fu ñu toll ñu moytu di joxante ay loxo yu bari ak di saafonte ñu moytu aussi di dem ci mbooloo bu bari comme ni ñu ko teree dajaloo mbooloo bu bari ñu moytu ko bu baax. nee ñu aussi booy sëqat nga jël mouchoir taf ko sa gémmiñ sëqat si bu paree nga def ko ci poubelle bi bu fekkee amoo mouchoir nga def sa loxo nii daal di ci sëqat bu fekkee tamit feewal bi da nga sant ne dafa la dal ñu ne nga resté sa kër jël sa marché taf ko ba pare nga woote ci numéro yi nga xamante ni moom lañ joxe te képp kuy sénégalais mu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que dañ koy def pour suñu réew te am na solo bu baax a baax jërëjëf mbokk yi gis ngeen loolu mooy li nga xamante ne ni moom moo am ci bantambaa di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax Karajo di ko ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm Babacar Diagne Sir Karajo ñu ngi lay béggee bu baax a baax mbokk yi di félicité bébé Diène ak Fourière combat bi métti na combat bi métti na trop mais ay jàmbaar ngeen ñu ngi leen di félicité bu baax a baax yéen ñaar ñëpp parce que joxe ngeen li ngeen am bébé Diène la yàlla jox ndam li mais ñaar ñëpp yéen moom félicitation bi Fourière gënal defaru boo ñëwee dina baax bébé Diène gënal yokk affaire yi gënal yokk coffre bi gënal yokk xeex bi gënal yokk doole ji ndax xale nga boo ko yokkoo bu loo ci yokk rek dana ñëw petit transitaire bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax mon ami moo frère maa ngi lay siyaare bu baax di la béggee mais di jaajëfal nag sama bàjjan borom complexe sooda borom soda style moo génn ak man fii aji soda say sëy may sa buuru ngalam yow Fatou Mbacke aajee sa yaay boo ma sañsee lee def nga li la war waaw kontaan nañ ci yow bu baax a baax di béggee waa Keba ñoom ñi ngi fii ci Gueule Tapée waxoon naa leen ñoo ko dagatee Aji Soose nag mbokk yi njaxas bi yow mi ci bëgg bëgg koo yóbbu fu la neex da ngay woote 77 750 60 84 77 750 60 84 boo ko defee di nga jokkoo ak Aji Soda mu ñawal la ci Baay Faal bi Tijaan bi Layan bi ñun ñëpp ñoo ko moom ndax njaxas gàllaaj la di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu nag équipe 2STV yëpp di leen kontaane di leen yàlla defal leen jàmm xale yi ñu gën a góorgóorlu ñu gën a jàpp ci liggéey bi loolu mooy li nga xamante ne moom moo nu mën a yóbbu fu sori grand yi ñoo fi nekkoon di góorgóorlu ba indi télé bi fii tey ñun ñoo fi nekk nañ leen góorgóorlu ba yóbbu télé bi feneen foo xam bu suñuy raq ñëwee ñoom it macha allah yokku liggéey bi di jaajëfal ñi ma àndaloon ci liggéey bi Bruno Mbaye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax comme d'habitude Ablaye Ndiaye maa ngi lay jaajëfal bu baax a Papi Dieng Papi Meng ni ma amee di ko wax mais nag maa ngi jàkkaarloog papi bi gën a bon ci papi yi xam naa ne moom moo may filmer muy Papi Dieng sama xarit bi kontaan naa ci yow di leen jaajafal mbokk yi bu baax baax ba mardi bi di ñëw yàlla na corona bi génn réew mi génn àdduna kenn mu bañ a dalati si barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est le bantamba c'est le bantamba aji solo sama bàjjen bi yaa fi ne sëy may sa yow raxasoo nga saabu barke Cheikh Ahmadou Bamba képp ku ma ku ma yëg ne maam sukkati nga ci ceeb bii te maanaam raxasoo ak sa loxo yeeg saabu ndax coronavirus bii wala maanaam ngay jàpp te raxasoo woon saabu kooku déclaré nga ma guerre du déggee li ma wax bu baax coronavirus bi daa bari léegi ci réew mi baax na te ngeen añ ndànk képp ku fi añ ak doole danaa ko lijjanti te ngeen moytu coronavirus. yow raxasoo nga saabu barke Cheikh Ahmadou Bamba képp ku fa ku fa maam sukkati nga ci ceeb bii tamaanam raxasoo la ak loxo ak saabu ndax coronavirus bii wala maanaam ngay jàpp te raxasoo woo rek saabu. kooku déclaré nga ma guerre. du dégg li ma wax bu baax. corona virus bi bari léegi ci réew mi. te ngeen añ ndànk képp ku fi añ ak doole danaa ko lijjanti te ngeen moytu corona virus. te dafa suuf sax maanaam ceeb bi <laughs> ko <laughs> ma am na ma jaamaanaa oo de lu mel noonu nag. yaa gis nga ko da ngay xeex ah, na ko de takk na ko takk na ko de. takk na ko si ñoom takk na ko wañ na ko na ko takk na ko. waaw waaw waaw. laa ilaaha illallaah looloy sukkër bi. wallaahi daa jëli bi rëy na. yee Paala jëli bi rëy la ay waane fi nekk. alaaji Paala. waaw siñoor daan na buuba jaxaaw jëli bu rëy. nee naa la Cees ay xale yu mën a la nga fi gis. alaaji Paala nga ne jëli bi mooy ban jëli. nee naa la da koo sukkër bi. ndeysaan c'est le Cees c'est le grenier la lutte sénégalaise. ndeysaan. Bébé Diène Frière laay laay la laa Bébé Diène daan na ko waaye Bébé Diène ndeysaan Bébé Diène waaye jëli bi rëy na jëli bi rëy na jëli bi rëy na xale baa ngi noonu. Pakala Doudou Sané Pakala jëm na ko oh, Pakala. Pakala li muy def ba wóor na Doudou wetu na ko Pakala fàqat na ko Pakala Doudou Sané Pakala nga ko jéem a mbotti. daan na ko nee na newoon naa ne dina ko mbotti. Pakala bon na Doudou Sané waxan nañ ko. waxan nga ko. Pakala daan na ko. Pakala bot na Doudou Sané. loxo droite xam nga loxo dama Pakala bot na Doudou Sané. Liss Ndiago dugg na ci garde bi général Kéré fayu na ñoom ñaar xeex ah, nañu général Kéré doxoon ci kawam Liss Ndiago taw na jël ko pa la ilaha ñoom ñaar xeex nañu mbokk yi ndax kaawa day am Liss Ndiago ak général Kairé attention Liss Ndiago wàcc na jël ko. général Kairé ngi dóor ci suuf. mu ngi dóor ah jaxabal na ko lay la fay la laa. Alaaji Fallé bu la daanul ñett jël dina la jox benn puleer. puleer la ñu. xale baa ngi nii. nee naa la sànq bi muy dóor. waaw dóor xajul foofu. xajul foofu. foofu bëree la bëree fa xaj. bëree fa xaj waaye Alaaji Fallé mais Alaaji Fallé Diop li nga ma wax dëgg la. daf ko bëgg a xar. waaw mais sori na. dafa sori. waaye téye ca ah, gannaaw laa ilaaha illallah bii jël la gën a rëy laay goote bii jël la gën a rëy ndeysaan laa ilaaha illallah daan na ko jël bu rëy jël bu rëy la ko daan daan na ko ñaari ndeysaan alaaji paala loolu jëlub top 5 la jëlub top 5 lii kay xanaa Modou Mbaye garaajo jëm Modou